الشيخ مشكورا مهجورا وسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية الذي جمعنا في هذا المكان ليفيد بعضنا بعضا ويستفيد من بعضنا من البأت نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وموضوعنا موضوع مهم جدا لأن الوسطية في هذا الدين الذي هو الوسط وفي هذه الأمة التي هي أمة وسطا إذا هذا الشيء لابد أن نهتم به ونتعقل لنستفيد lii lu fiit mbokk yaa ngi wax ne nañu bàyyi xel ndaxte dawra bi ni muy tëdd mooy waxal ak nit ñi ci làmmiñ bi ñu jàpp ne buñ ci waxee ci la ñuy gën a digg kon gannaaw ba ñu santee borom bi subhanahu wa di wax ne li ñu bugg a waxtaanee dafa am solo lool ndaxte diine ji di al islaam daa digg doomu xeet bi di xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa nekk xeet bu digg doomu kon doomu aadama bi daa war a bàyyi xel ci diine ji muy dund ci xeet bi mu bokk mu dal di ci seet seetantal ay mbiram ndaxte jafe-jafe yi am lu ci ëpp rekk mooy sàggan ci buntu bi ëppal mbaawaan yi nekk daa iman nag ci rëdd bi daa nekk lu jafe moo tax i quran da koy dal di joxoñ ci loolu ngir saxal xeet bi yoon woowu nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala tànnal borom bi wax nañu ne wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nnaas wa yakuna rasulu shahida borom bi ne xeet wi maa ko def xeetu diggu dóomu dinañ ci ñëw lan mooy wasat xeetu digg doomu jubluwaay boobu nag ngir ngeen seede yeneen xeet yi yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa ngir yonent bi sallallahu alayhi wa dal di leen seede seede nag boo ko seetee seede li takunu shuhada ala nnaas balaa ngay nekk shahid seede témoin am na loo war a dajale li ñetti mbir yoo xam ne mënta ñàkk al ilmu wa sidqu wal amaana pour nga mun a seede ndaxte de day am looy wax ngir loolu nga wax ñu teg ci àtte parce que loolu mooy seede kon loolu ngay wax da ko war a xam kon loolu ñu di ci bàyyi xel da nga war a xam kon xam boobu bàyyi ko xel ci bunt bi loolu ngay wax daa war a nekk dëgg li dëppoo ak li am ngir ñu joxe ci àtte mais da nga war a nekk ku maandu waratoo seet mbokk baa nga seet àndandoo baa nga seet xamee baa nga seet leneen kon bunt bi bunt bu am am solo la ci aaya bii nga xam ne borom bi subhanahu wa leeral na ko te yonent bi sallallahu alayhi wa taxawoon ci taxawaay bu mucc ayib boobu borom bi ne ko mungoo roy leen ko ci kon bunt bii balaa ci nit ki di jëriñu dëgg-dëgg fokk mu xël mu xam siira mu xam xayaatu saxaaba ridwanullahi alayhi dinañ jéem nag ci ay tomb ci ay anam joxoñ amuk solo diggu doomu ak lan lay firi wa billahi tawfiq lii nga xam ne mooy alwasat dañu tuddee ko alwasatiya yaati lwasat fi lugati li iddati maani boo fekkee ne ci làmmeñu arab lan mooy wasat kooku dina ñëw ci ay maani xëj nañu jël ci ñett rek kon bokk na ca yooya maa kaana bayna tarafay shay mbir moo xam ne ni ko olof bi tuddee la digg dóomu mbir maa ngi nii fii mooy cet bi fii mooy beneen cet bi ci digg bi kon loolu dina ñëw ci wasal nekk ci digg bi bul wàcc dem côté bale bul wàcc dem côté bale mu ngi mel ni bopp balance bu baax balance balaa nga koy peese da koy régler mu nekk wasant bu nekkee wasat nga teg poids bi teg la nga cay def mu niveauté rek baax na mais bu fekkee ne boo teggee mbir mi teggi la ngay teg teggi poids bi rek mu jeng la nekkul ci wasat kon benn maani bi mooy wasat kon yow ci sa bopp nag lañ bëgg nga mel noonu ne coow ci digg bi kon loolu daa am nattuwaay ak yoon woo xam ne ci nga war a jaar mooy benn maanaa bi ñaareelu maanaa bi day ñëw bi maanaa sifa bi maanaa xiyaar wa afdal wa ajwad day ñëw nekk melo mu nekk comme melo bu ñu nee wasat fekk lañ ca jublu mooy baax gën jub fekk loolu lañ jublu ci wasat baax gën jub léeg-léeg bu ñu wasat fekk loolu lañ ci jublu ñu bañ a fàtte maanaa bu njëkk bi li nga xam ne mooy digg bi ñu am beneen maanaa boo xam ne léegi melo laay doonaat buñ ne fulaanun wasat rek na nga xam ne kooku lañ ci jublu mooy min xiyaari naasi wa afdalihim wa ajwadihim daa bokk ci ñi gën a baax ci nit ñi ëpp leen ngéneel te gën leen a nekk ci yoon bi xaj na euh, ay tegtal yu bari yuy wane ngëneelu loolu ak loolu xaj na duñ ci duñ ci sori ndaxte ci beneen wàll gi lañu bëgg dem ñetteel bi mun naa nekk maana al adl buñ nee wasat rekk kon liñ ci jul mooy al adala mooy mooy maanu doo jeng fen kon boo seetee ñetti maani yi yépp day walbateku dajewaat di di lenn lenn loolu nag daa yóbbaale doomu aadama bi ci pas-pasam jikkoom jëfam meloom bërëbam jamono kon loolu mooy dund bu ñu tuddee wasatiya bu ñu foog ne dañ koy wax loolu rek mu dem déedéet mooy dund bi la boo demee ci marché bi wasat ci jàkka ji wasat bu yombee wasat bu jafee wasat bu meree noonu bu bëggee noonu bu soloo noonu hakada rawatina nag li nga xam ne mooy xam-xam bi ak la muy fas nag foofu nag la mbir mi gën a gën a amee solo léeg-léeg dañuy gis jafe-jafe yu bari ci koo xam ne sax day woote woo sunna mais mu am jafe-jafe yu bari parce que jafe-jafe yooyu rëq baa ngi ci aqida bi aqida bi moo nekkul wasat am na pas-pas bi gaa léeg-léeg nga gis mu dugal ci lu ci bokkul walla mu génnee ci lu ci bokk wala mu am comportement boo xam ne du boobu kon wasatiya boobu dafa def koo rëcc ci li borom bi subhanahu wa taala waxoon ne li takunu shuhada ala nnas kayfa takunu shahidan laa taalam ma tashhad nooy seedee xamoo nooy seedee dëgguwoo nooy seedee maanduwoo kon xam dëggu maandu mooy raayu alwasatiya mooy raay bi nga xam ne ci ngay jaar doo dal di wàcc looloo lay contrôler sàmm la ci anam yépp loo ci def rek ñoo xam ne kii wasat wasat boobu nag fan la lay yóbbee mooy bu résultat bi génnee nga nekk ci lan min afdali nnaas wa axyaarihim wa ajwadihim nga nekk koo xam ne nag dañuy gis ne ndeke yaa gën ci nit ñi yaa gën a baax yaa gën a jekk yaa gën a dëgër kon foofu la lay dal fii yóbbee kon dinañ ci jël ay ay tegtal rek ci alwasatiya ci diine ji nga xam ne mooy diinal islaam di xeet bi nga xam ne mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu ciy xool ah, yenn yi ñu koy jàppee alwasatiya kon ki koy dund nga xool résultat bi mu lay jox ci ñetti maana yi ñu waxoon benn bi mooy fii tawxidillahi azza wa jalla wa sifaati ci melo wéetal borom bi subhanahu wa ak turu borom bi subhanahu wa ak melo yi borom bi subhanahu wa ñu xool ko baynal yahudi wa nasara nga xool jullit bi bi nga xam ne moom la wax ne mooy ummatan wasafa nga xam xool pas-pasam moom ci anam bu mel noonu kon dangay gis ne jullit yi ñoo taxaw ci digg bi jox yàlla àqam tereluñ ko dara jox jaam bi àqam yëkkitewuñu ko pour àqu yàlla waaye toroxaluñ ko pour mu nekk xayawaan da gis umma bi rek moo jaar ca anam boobu ndaxte boo seetee alyahud melo yi nga xam ne jox nañu ko borom bi subhanahu wa melo la yoo xam ne mooy melo ñàkk teggi ndaxte bu fekkee ne melale nañ borom bi subhanahu wa taala bi naqsi wal buxli wal buluwati wal faqr ah, loolu da gis ne ñoom nu ñu jàppee seeni borom borom bi nu ñu ko jàppee bu ñu demee bene borom bi subhanahu daa am melo yoo xam ne melo yu matul la wala borom bi subhanahu daa nay ba daa siis wala borom bi daa ñàkk walla borom bi daa am doom loolu boo ko méngalee ak jullit bi lim lay jox mooy subhanallah amma yasifun da ngay def borom bi subhanahu ci melo yooyu nga xam ne moom lay wax te borom bi subhanahu wa taala dal di saxal loolu mu ne ñu laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna faqir wa nahnu agniya sanaktubu ma qaalu wa qatlahum al bi gayri haq borom bi subhanahu wa taala saxal seen pas-pas boobu mu ne ñii nga xam ne mooy yahud ba nasara ñi nga xam ne wax nañu ne yàlla defa ñàkk ñoom ñoo am borom bi subhanahu wa mu ne dinaa bind loolu nga xam ne wax nañu ko waaye yemuñu ci sax de dañuy njëkkalante di rey ay yonant kon côté boobu gis nañu ne ëppal dal dina am wa qaalat al yahudu yadullahi maglula mu ne yahud yi ñooy ne yàlla defa banque loxoom parce que ndaxte du joxe boo jàllee foofu dem ci annasara nga gis ne ñoom itam melo ba ñu waroon a jox borom bi subhanahu wa taala moom la ñu jox jox ko parce que bu ñu ne mooy ilaa mooy koo xam ne yàlla la mbaa ñu doomale ko yàlla da nga gis ne balance bi équilibre nga gis jullit bi som subhanahu wa lim ko may dal di ko ko jox moo bu ñëwee wasat bu ñu ne isa bnu maryama abduhu wa rasuluhu bu ne allahu tabaraka wa taala wasafuhu bima wasafa bihi nafsa wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa bi subhanahu wa taala ak i meloom moom ñu ngi koy déglu bu ñu waxee nu mu tudd ñu ne noona la bu ñu waxee nu mu mel ñu ne noona la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal dañu ko leeralal bu ñu nee keneen ñu ne kooku yonent la jaamu yàlla la waaye ab yonent la kon loolu mooy alxabtul mustaqim mooy yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub yoon woowu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ bi subhanahu wa ne nañu ko leeralal qul hazihi sabili adu ila llahi ala ana wa man ittabaani haasihi lañ wax joxoñal na ko kaannahu shay'un mahsus haasihi bil ishara wax leen lii lan la mu jàngale wone ko ñu wàccee ko ci moom mu ne mooy sama doxalin te man nag ca yàlla la may woote jëmale ni ñi ci borom bi subhanahu wa leen jëmale waaye kayif mu delloo ñu li takunu shuhada ala nas mu delloo ñu ca loola diine ji wasatiya bi ci gën a rëy mooy xam mais foog nga xam boo xamul kayfa kayfa takun wasatan nooy xamee ne kii wàññi na nooy xame ne kii ëppal na nooy xamee ne fii mooy limite bi moo tax mu ne ala basira ci xam-xam lay tegu ñu daal di woote ci anam bu mel noonu kon jafe-jafe bi bi nga xam ne bokk na ci li ñuy gën a am an takuna laka kalima la taarifu shay'an wa an taquuda annaas laysa laka manhajan kooku lu muy sottee nga wax wala nga def dara te xamoo nga jiite nit ñi te amoo programme foo leen di jëme kon bu ñu bëggoon a def taqlib dëgg-dëgg wasatiya mooy programme yow nga am programme booy nattee sa bopp lii laa bëgg fii laa ko bëgg nii laa ko bëggee xaasa wal wasat parce que bu dul loolu da danga def loo xam ne du loolu nga waroon a def danga dem foo xam ne du foofu nga waroon a jëm da ko jëf ci jamono boo ko waruloon a jëf maa nga jëf ko ci place boo ko waruloon a jëf kon la budda min min manhaj nga soog a am lii nga xam ne mooy mooy alwasatiya kon loolu ku ne rek da ci war a bàyyi xel ñaareel bi fii itam nga gis ne ummatu muhammad sallallahu alayhi wasat lañu ci seen pas-pas fii anbiya illahi tabaraka wa ci yonant ci yonant ñoom dañoo gëm ne yonent bi nit la ni nit ñi yajuuzu fiihi maa yajuuzu linnaas qabla ar risaala waaye baada ar risaala yakunu maasuman laa yuqarru bi xatain walaw axta mooy nit ki moom nit la dañuy d'accord ci loolu yonent bi moom nit la dagan na ci moom li dagan ci nit ñi balaa mooy doonu doon doonte dañ leen di sàmm moo tax charia bu ñëwee fa mu nekkee yonant lay tàmbaleeg yow nit ñi nag ci seen xër seen man a seetlu seen defar ñu ànd ak moom càmmaam ya mooy doomu diw ak diw ak diw ak diw ak diw ñëw ñoo meloon ni ñoo defoon ni ñoo defoon ni mais li ci bari da ngay gis ne ay yéeféer la ñuy doon ba mu juddoo xarbaax bi am na lii am na lii am na lii am na mais boo seetee quran du ci joxoñ dara charia du la ci delloo ci dara mais keroog ba nga xamee ne uuhiya ilayhi rek charia ne la aha commencé kon loolu mooy wasal mu dee yonent ci boppam daf ñuy woo di ñu wax ci lu mel noonu alquran di ko saxal qul innama ana basarun mislukum yuha ilay kon raw nañu nit laa ni yéen waaye dañ may dañ may wax yi boo seetee nag al yahud wa nasara dañ koy génnee ci cadre nit bëgg koo yóbbu ci cadre doon yàlla wala cadre am àqu yàlla wala cadre nekk doomu yàlla loolu mooy tax na taqdiis boobu day dal di ëpp waaye duñu ko ahlu sunnati wal jamaa duñu ñu ñëw itam wàññi ko waaye bu dee ci ñeneen da gis ne même yonent yi léeg dañ leen di wàññi ci yenn ci ay taxawaay donte dañuy wax na gëm nañ ko boo seetee alyahud fan lañu ñu jaar ak Musa alayhi salaam lu nekk wax nañu ko melo bu nekk joxoñ nañu ko kon anam yu mel noonu la nit ki di xam moom diine ji nga xam ne moom lay dal di dund moom wasal lay dal di ne boo gisee alyahud qatalul anbiya wa ramawhum bi kulli chiin wa naqis rey nañu ay yonent sànni nañu leen ci ay tuuma def nañ lu nekk rëy rëy nañu ci topp leen ci anam yu mel noonu boo gisee nasaara yëkkati nañ leen bi def leen ay yàlla ummatu muhammad sallallahu alayhi ñëw nekk wasat nekk ci diggante bi ne yonent bi du yàlla yonent bi du yàlla mais nit la waaye nit la ku sell te xam te laab koo xam ne duñ ko bàyyee njuumte la waxam dañ koo war a jël jëfam dañ koo war a topp dañ ko war a sopp cofeel boo xam ne mooy wone cofeel diggante kuy jaamu yàlla ak ki yàlla yónni xam ne def lay jottulil munoo am sa diine bu leer lu dul ci moom kon ay waxam mooy dëgg waaye moom nag am na fu mu yem foofu mu yem nag loolu mooy àq yi nga xam ne dañ koy jox borom bi subhanahu kon boo seetee ci anam googu yi da ngay gis ne ñoom nekk nañu wasat borom bi subhanahu wa taala di ko joxoon mu ne ñoom ñii ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah walmasiha bna maryama wa umiru illa li ilahan wahida laa ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun borom bi subhanahu wa taala leeral ko ci ñi nga xam ne ñooy an nasara mu ne ñoom seeni borom ak seeni jaamukatu yàlla la ñuy jël def leen yàlla ak yonent ba ñu yónni woon ca ñoom ne moom lañuy jël te mosuñu leen a digal lu dul nañu jaamu kenn ki mooy borom bi subhanahu wa ta'ala kon mooy wasat bi nga xam ne dañ koy dal di joxoñ kon yonent yi dañ leen di jàppee ay yonent borom bi subhanahu wa ta'ala moom moom te sañ moom mooy sàkk di doxal am loo xam ne pas-pas la ci moom waaye ki mu joxoñ mu ne ñu yoonu njub ci moom la loolu itam ñu dal ko ñu dal di ko nangul loolu ñoom dañ leen di bëgg sopp leen topp leen te duñu leen jaamu foofu mooy wasatiya bi nag topp nit ki teqale ko diggante toppeel ak cofeel wuute na ak jaamu ndaxte jaamu li mu laaj mooy ak toroxlu ak wékku loolu la jaamu laaj toroxlu toroxlu ci kanamam ak wékku ci moom yaakaar amma toppeel bi nga xam ne nag moom toppeelu ku ñu yónni loolu cofeel la ak dëggal la dal di kon loolu mooy wasat bi nga xam ne dox na ci diggante bi ci loo xam ne dañuy saxal loolu ci lii nga xam ne mooy ab yonent ñu gëm ne yàllaa ko yónni waaye yonent yi ci seen bopp nag laa yamlikuuna walla wala naf'an wala yaalamuuna illa ma allamahumullah parce que loolu mooy doon xëy parce que bu fekkee ne ñoom lépp la rek kon nekk nañu yàlla boo seetee yonent bi sallallahu alayhi wa bari na ci loo xam ne day saxal loolu dangeen di gëm ne njëriñ li leen di jëriñ ak li leen di lor bàyyeekoowul fi man mu ngi bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala amma yoonu njub bi nga xam ne nag moom la ñuy joxoñ waaw loolu de mam mun naa koo joxoñ mun naa koo mun naa koo wone moo tax boo demee ci aaya yu bari danga gis ne borom bi subhanahu wa taala dàq ko ci wàll bi saxal ko ci wàll bi loolu mooy wasatiya bi innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha loolu am na xisso du ku la soob yow yonent bi sallallahu alayhi wa mooy nekk jullit waaye ku soob yàlla mooy nekk jullit kon loolu mooy lan génnee ngëm dugal ko ci biir xol kooku borom bi subhanahu wa taala moo ko moom waaye jubal la wax ak yow waxtaan ak yow jàngal la ba sa xol nooy nga mun a dugg ci diine ji kooku jox nañ ko yonent bi sallallahu alayhi ah? loolu la ko wax lan la ko borom bi subhanahu wa taala wax wa innaka la tahdi si siraatil mustaqim da ngay jubal kon jubal boobu mooy lañu ko jox xol bu nooy xol bu lewet mun a wax ak nit ñi jàngal leen muñal leen xol bi jëm ci moom borom bi dugal ci ak njub mais loolu yonent bi sallallahu alayhi bu ñëwee ci xol bu borom bi dugalul ak njub def ci mbaax mu man koo dëglu man koo sopp kon njub boobu du am kon ñaar yooyu dàqal na ko fii saxal na ko fii kon kooku mooy wasat bi nga xam ne dañ koy dañ koy jëriñoo ci wàllu pas-pas ci ab yonent boo seetee nag umma bi moom wasat la ci boo demee ci yeneen yi du mel noona ñetteel bi mooy fil xalaali wal xaraam fil xalaali wal xaraam ci lu dagan ak lu xaraam di gis ne umma bii mooy wasat ndaxte boo seetee alyahud wa nasara borom bi subhanahu wa ci seen jëf yoo xam ne yu ñàkk teggiin la yu safaanoo ak yoon wi la ba borom subhanahu wa taala xaraamal ca ñoom la mu daganaloon ca ñeneen xaraamal ca ñoom la mu daganaloon ca ñeneen borom bi subhanahu wa ni ñu fa bi zulmin min alladina haadu xaramna alayhim tayibatin uxillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira fa bi zulm kon tooñ baa tax kon dañ leen a sanctionné tooñ boo xam ne ak jalgati boo xam ne def nañ ko borom bi subhanahu wa taala sanctionné leen xaraamal ci ñoom yoo xam ne dagananoon nañ ko ci ñeneen te mbir la yoo xam ne mbir yu dagan la waaye seen jëf ñoom seen jëf ñoom ba borom bi subhaanahu wa taala ak ñoom ci anam yu mel noonu lu mel ni nasaara xuus yoo xam ne dañ koy xuus ci yoo xam ne yu xaraam la borom bi subhaanahu wa taala ko xaraamal ci ñoom waaye ñoom ñu jalgati daldi ko jëfee ba ñoom ñu nekk ñoo xam ne fasta fastaxallul xabaisa wa jamii al muharramaat kal maytati wa dami wa lahmil xinzir dañ leen koo xaraamaloon waaye ñu dal di xuus ci anam yu mel noonu lu leen ko yóbbee mooy bañ a nekk wasatiya boo ko seetee ci jullit yi ak nit ñi nañuy doxee da ngay gis lu mel noonu nga gis benn waay boo xam ne subhanallah moom la muy jàppee boppam moom mooy ak wasatiya ak woyofal ak yaatu nga nekk ñoom ñu noot du mu ne nañu julli ji mu ne dangaa ëppal parce que yàlla nangam ak nangam yow dangaa ëppal keneen ki gis ne yow li nga nekk boo déggee noot dañ koo war a bàyyi parce que mooy alwasam mooy lañ doon junj léegi ca jamono ak i mbir ni ñuy demee nga gis ñaar ñi commencé nañ di wute kii gis na de moom da ko waroon a bàyyi mu toog ci ay mbiram ba heure bu ko neexee mu dem julli ji wala buy julli ji na dem ba ko moom. bu mu ko def ci yeneen keneen gi gis ne noonu waxtu wi bu jotee dañuy war a dem julli ji te àq la ci man bu may julli ji ma laay la biir ma tan bii la kenn ki jàppee kale ne dafa ëppal keneen ki jàppee kale ne dafa wàññi kon wasatiya bi boo ko fa seetee dangay gis ne la koy delloo si waat mooy lan mooy xam dëggu moo koy delloo si waat kon boo déggee nodd bi da war a jóg dem parce que loolu mooy wasatiya kon boo toogee wàññi nga nit bu la ko waxee nga wax ko dara teengal nga parce que yow da waroon a da nga waroon a nangu sori lii nga xam ne mooy mooy rëy moo tax jullit di boo leen seetee ñoom dañuy déglu rek borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ahallu ma ahalla allah wa rasuluhu wa harramu ma harramahu allah wa rasuluhu nekk loo xam ne c'est tout li yàlla dagana la ak yonentam ñu ne looloo dagan li yàlla xaraamal ak yonentam ñu ne looloo xaraam billahi aleykum lan moo leen ko yóbbee lan moo leen ko baaxee ci taarif yi nga xam ne dégg nañu ko léegi mooy al ilm mooy xam-xam bi parce que boo ko xamul naka ngay xame ne lu dagan la naka ngay xamee ne lu xaraam la boo dëgguwul naka lay sottee boo maanduwul naka nga koy nangoo ci sa bopp ndaxte maandu rek mooy tax nga nangu ko ci sa bopp nga nangu ne borom bi subhanahu wa moo la sàkk moo la diggal moo la tere te waxul ak yow keneen la jël mu def ko sa diggante ak moom pour mu wax ak yow leeralal la kooku moo yonent bi sallallahu alayhi wa kon noo koy seppee ci mbir mi loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñoon na mu ne jamono dina ñëw benn waaye jaaxaan ci piliyaanam mu ne lu Qur'an wax rek man ma déggal ko lu ma gisul ci Qur'an sama yoon nekku ci mu ne kooku alku na alak na utiitul Qur'ana wa mislahu ma dañ ma jox Qur'an ak lu mel ni Qur'an mu ànd ak moom mooy sunna kon ñaar yooyu boo ko buggee séparé kon misaan bi benn kaf ngay demee amatul beneen bi kon lii tax ñu ne maandu lii tax ñu ne yaa ngi digg dóomu loolu nekkatu fa parce que benn boor bi nga nekk génnee beneen ba kon foog nga delloo ci beneen bi beneen boobu boo ko delloo jox ko poids beneen ba loolu itam dootul sotti ndaxte beneen bi nga xam ne mooy yonent bi di lay leeralal li nga xam ne loolu la beneen bi bëgg ak la mu wax ak naka nga koy déggee kon nga nekk yow ci wasat kee ngay déglu waaye kii moo lay leeralal li kii wax lan la nga jaamu ji borom bi subhanahu wa taala nga roy yonent bi sallallahu alayhi wa kon foofu da gis ne wasatiya bii nga xam ne mooy jullit yi day dal day dal di leer nekk yoon woo xam ne yoonu mucc lay dal di doon ñeenteel bi muy fil ibadat mu nekk nag li nga xam ne presque mooy sulbul mawtu jaamu yàlla yi na nga xam ne mbir mi ñuy tuddee ibada ndaxte foofu rek daa am lu mu laaj mbir nga def ko ba pare nga jàpp ne haasihi ibadatun kooku daa am lu muy laaj parce que ibada mooy jaamu kon loolu jaamoo borom bi subhanahu wa daa war a nekk tegtal waaye waruñu koo teg ci lan ci ay misaaj wala alhawa wala hiwaaya yooyu parce que jafe-jafe la am na koo xam ne jaamu yàlla moom misaaj la rek ba comportement am rek moom hakata moom jàpp na ne loolooy jaamu yàlla am na koo xam ne jàpp na ne jàmm yàlla mooy li mu bëgg moom bëgg-bëgg bakkanam faqat loolu mooy jaamu yàlla am na koo xam ne jaamu yàlla moom hiwaaya la ko def mooy benn mbir bi nga xam ne yow tànn nga ko di ko fiixalee sa xol waaye yooyu yëpp boo ko seetee sori na lool li nga xam ne mooy jubluwaayu ibaada loolu nag lan moo la koy jox mooy alwasatiya mooy nekk ci diggu dóomu bi nga xam yoon wi naka la kon boo seetloo toujours ñu ngi tudd al yahud wa nasara ndaxte mooy doon nattuwaay bi ndaxte ñoom dañu wàccee ci ñoom téere dañu yónni ci ñoom ab yonant ñu am ci ay pas-pas yoo xam ne seen pas-pasu bopp la ak ay doxalin yoo xam ne seen doxalinu bopp la loolu itam dab umma bi nga xam ne mooy ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yónni ko wàcceel ko téere waaye boo seetee doxalin yi nekk loo xam ne lu wuti la ñu tuddee xeet wi nag wasat mooy diggu doomu boobu nga xam ne dégg nga niñ ko niñ ko firee woon te firiwin boobu borom bi subhanahu wa taala joxoñ na ko ci beneen wàll bi nga xam ne waxoon nañu ne mooy wasat mooy xiyaar ak afdal ajwad kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas limaada taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna kon joxoñ na joxoñ na wasatiya bi foofu yéen ay xeet bi bi ñu génnee ci xeet yi nga xam ne wàcceel nañ leen téere yónni ca gën lu tax ndaxte da ngeen di jox yàlla ak xam lool la hakada taamuruna bil maaruf parce que da di digle njekk da ngeen di tere safaan ba kon loolu mooy ak wasatiya boo xam ne day sori lépp li ñu waxoon léegi ci jaamu yàlla ci nii nga ko bëggee nii nga ko xamee nii nga ko gisee ñu bëri nga xam ne noonu la ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa ñu jàpp ne ñu ngi ci umma muhammad sallallahu alayhi wa ñu jàpp ne ñoom dañu bokk ci afdalun nas ñu jàpp ne ñoom ñooy seede nit ñi ëllëg yowmal qiyaama ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo ko wax mafhum boobu boobu baaxul dégg-dégg boobu nekkul dégg-dégg bu baax kon moo tax fii nga gis ne ñii nga xam ne ñooy yahud seen anamu jaamu borom bi subhanahu wa ñoom alimu walam yaamalu ah, loolu am na lu muy joxoñ xam nañu waaye jëfuñu ndax loolu wasat la ay sa wasata ah ñoom xam nañu ñoom seen bopp xam nañu borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu ngi nii xam nañu loolu moo tax ñu nekk almaghdub alayhi moo tax borom bi subhanahu wa taala mere leen kon yow bëgguloo nga bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di mere ñoom ci seen bopp ñoo ko wax borom bi subhanahu wa taala sami'na wa asayna dégg nañu de li nga wax borom bi mu ne waaw akkañu koo dégg waaye ñoo bañ mais ummat bi nga xam ne mooy wasal nga xam ne daa am nu muy jëflanteeg boromam daa am nu muy comportement ñoom ba ñu waxee lan la ñu wax sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaykal masir gis nga yoon bi yàlla sami'na dégg nañu waaye nag wa ata'na nangu nañ li nga wax de waaye suñu nangu bi ñu nangu nag doomu aadama dafa tayal doomu aadama dafa loof doomu aadama defa sàggan doomu aadama doomu aadama kon yàlla xam nga li ñu bëgg o ufraana ñun ku ñu jéggal la ñu bëgg de te wóor nañu nag yoon wi ci yow rek la ñu jëm taxawaat ci sa kanam dégg nañ li nga wax de waaye ndax jëf nañu yëpp déedéet jëfuñu yëpp ndax farlu nañu déedéet waaye loolu yëpp nag ñu ngi koy nangu ci kanam borom bi nga xam ne mooy yërëme moo sañ yàlla xufraanak kon gis nga tawhid bi nga xam ne dellu si na mu tegu nag ci ci maandu d'accord nga ne yàlla moo man moo sañ waaye d'accord nga ne yow mii ci sa bopp ba nga déggee loolu yi taxawoo taxawaay bi nga xam ne moom nga war a taxawee te doomu adama noonu loolu kon il faut tuub ñu dellu ci borom bi subhanahu wa kon gis nga ni mu wuutee taxawaay boobu nga xam ne mooy taxawaayu alyahud moo tax ñoom ñu bañ ñu rëylu rëy rëylu ci topp yàlla ci topp seeni sago ci jaamu ay caaxaan ci def loo xam ne mbir la yoo xam ne kenn santu leen ko mooy benn kon ñooñu xam nañu jëfuñu ñu dellu ci nasara boo ñëwee ci nasara ñoom ci seen doxalin dangay gis ne ñoom nasaraa yi ci seen bopp lam yaalamu wa abatu ala jahl ñoom xamul moo tax gayril maxdubi alayhim wala dallin almaxdubi alayhim alyahud addallun annasara parce que ki réer ba xamatul kuy borom bi inna allaha salisu thalatha xalas ah yàlla danoo xaw ma yàlla moom am na kan la mu ne kenn la ci ñett ñi subhanallah ñu ne yow réer nga waaye ci réer boobu ñoom taxaw nañ te xamuñu te ñu ne dinañu def kon wuute nañu ak yow yow ñoo xam nañu ba pare ñu ne ñun duñu def ñii xamuñu ñu ne ñu def kon boo seetee safaan am na ñu ne ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ay wasat yéen ay lan wasat yéen a nekk ci diggu doomu bi kon digg doomu boobu mooy lan mooy xam balaa ngay jëf xam balaa ngay jëf moo tax imam Bukhari rahimahullah bawwaba baaban qaal al ilmu qabla al qawli wal amal buntu ci saxi Bukhari mu ne la balaa ngay wax balaa ngay jëf xamal parce que bu dul loolu am na ñaari wàllu yu la xaar de al xam nañu te jëfuñu am nasaara xamuñu te ñu ngi jëf mu ne yow nag moytu loolu yow balaa ngay jëf xamal ndaxte bu dul loolu rek nga dugg ci buntu nasaara loolu moo indi bidaa yi loolu moo indi shirk yi loolu moo indi coono yi loolu moo indi wuute yi mooy danaa jëf te xawma safaan beneen bi loolu moo indi yenn natt yi nga xam ne dañ koy nattee diine mu ñuy indil jafe-jafe ku ñu jàpp ne xam na te du jëf ku ñu jàpp ne delluwaay la te du jëf boo waxee nangam ñu ne diw moo la ëpp xam-xam fuuf te li ngay wax waxu ko li ngay jëf nii defu ko kon bu ñu fonto kon léegi jàpp nañ ne diw boobu nga xam ne xam na te jëful yoon la woo xam ne dañ koy topp kon loolu mooy yoonu yahud nga gis feek waa joo xam ne xamul dara ay bidaa rek laay def di jóor lii baax na lii boo ko defee da nga am lii lii boo ko defee nangam ak nangam kooku it nit ñi wër ko ñu ne naga dal di topp kooku it kooku it mi na dool li ndaxte ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dalaala la ko tuddee kullu bidatin dalaala kon yow ci diggante boobu nga war a ne danga war a jëf waaye lépp looy jëf daa war a am tegtal kooku mooy wasat boo jaaree ci yoonu nekk nga wasat kon yow nekk nga koo xam ne ku diggu doomu nga ndaxte loo jëf rek ñu ne la um nga ne lii la xalaas li nga amalul tegtal ba ko fa ba nga amal ko tegtal wala nga xool koo xam ne wóolu nga ko dëgg-dëgg nga leer lu mu leeralal la waaye ñun nag suñu jafe-jafe ngir ne nekkuñu wasat mooy damay jëf ba pare di wuuti tegtal bu may daganal li ma jëf loolu mooy indi wadul hadis mooy indi nga ne yonent bi wax nga ne waxul loolu mooy indi taawilul fasid aaya boo xam ne la muy junj du loolu nga ne dañ ko walbati indi ko ci anam bu mel noonu loolu mooy indi indi a u sëy woote wu ne yow dangaa am sañ-sañ ne man li ma xam yàlla ma ko xamal xam-xamu direct la nangam ak nangam li may wax nekkul ci téere yi yàlla ma ko baaxee parce que da nekkul wasat daa am loo xam ne danga koo jël bëgg ko ngir ne ànd na ak li sa xol bëgg wala sa melo wala place ba nga ne nga ne kon lii la kon lii damay dem wuutali ko tegtal tegtal ba ngay indi du wér parce que laa yakunu mabniyan ala al ilm laa yakunu mabniyan ala sidq laa takunu aadilan ma an nusuus gis nga kon li ngay indi du doon lu wér la ngay wax du doon lu dëggu te yow tegtal yi ngay jël ci quran ak sunna tegtal yi joxoo leen seen àq am na tegtal boo xam ne da nga koo woñ ni nga ko déggee yow mais nekkul ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee wala nga wax loo yonent moo waxul kon jafe yu mel noonu li ko indi rek mooy bañ a a jaar ci cadre boobu nga xam ne mooy mooy cadre wasatiya ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal nañu ko baaxee moo tax mu joxoñaloon ko waa nasaara ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها borom bi subhanahu wa taala mu ne rahbaniya mooy làbbewu loolu boo ko seetee tasarraba ilal muslimin am na koo xam ne mu ne man du ma takk soxna parce que taluma ko damay jaamu ji yàlla kooku yàlla kañ la la ko sant yàlla santu la ko kon mbir yooyu tey ñoom ci seen bopp boo waxtaananoog ak ñoom dinañ la wax ne démb bu doon tey arrahbanatu wa inna laha thalithu thalatha duñ ci dugg mukk parce que fere na la seen diine àndul ak xel àndul ak avancement àndul ak yokkute munul dem parce que yow boo xesee nekk nit ku baax ci ñoom niñ ko déggee ci yow la yem doo takk soxna ngir mun koo jubal doo am ay doom ngir boo fi jogee mu roogaat nekk ci yow yow nekk nga nit ku baax yow dong la nga dee mu fay jeex ummatu muhammad sa alayhi wa sallam nekk wasat tazawwajul waduud al waluud fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyaama yow ku baax nga yëg nga ne ku baax nga mu ne gaawal nga wuuti soxna yoo xam ne yu mun a am ay doom lañu nga gaaw wuuti ay soxna yoo xam ne yu mun a am doom lañu may nañ nag ba ci ñeent ngi mbaax bi nekk ci yow nga sos leen ci loolu te fekk yow ku baax kooku ñu ne booy demi doon wuutal ku baax fas far bi zaati diini taribat yadak nga nekk ku baax tànn soxna bu baax boo xam ne borom diine la ngeen am njoboot yàlla baaxee leen njoboot gi nekk njoboot gu baax ñaata ci doomu aadama la ñuy def ñoom bu la yàlla mayee ay góor ñaata ñooy doon wuutu la bu la may ay jigéen ñaata ñooy sëy yóbbaale foofu mbaax fa ñuy sëy yàlla def ci barke kenn nga woon waaye bu yàggee nga nekk junni ah kon loolu loolu rëcc nga leen parce que teguñu ko ci xam-xam inna laa salisu salaasa mënuñu koo expliquer un égale trois trois kenn mënu koo expliquer parce que moo tax question la boo xam ne amul réponse mu nekk problème ci seen i diine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leeralal ñu ko alxuraan ñoo ne déedéet déedéet loolu bu leen ko jël te ñoom mu ne bañ ko jëlee respecté wuñu ko du ma takk soxna te léeg-léeg nga bëgg gis soxna yooyu yeneen yeneen jafe-jafe la parce que dafa teguwuloon ci xam-xam bu woon ci xam-xam nga xam ne ni ñu mooñee doomu aadama lan la lan mooy njëriñu hikma bi borom bi subhanahu wa taala def ci soxna ba mu ne la nanga ko wut lan mooy njëriñu yokkute naka la war a demee moo tax loolu boo ko seetloo da ngay yëg ne umma islam bii rek mooy wasat toujours rek boo ci jàddee da ngay am jafe-jafe yoo xam ne daa iman ay jafe-jafe lay doon yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala dal di musal kon xeet wii borom bi subhanahu wa taala baaxee nañu faqad alimu wa amilu loolooy wasat bi alimu wa amilu xam nañu jëf lañu xam jeex na loolu boo ci nekkee rek yaa ngi sa sabili xam nga lu leer looy def rek xam nga ko parce que da nga ko war a xam bu dee pas-pas xam nga lan mooy pas-pas bu leer bi bu dee jaamu yàlla xam nga lan mooy jaamu yàlla xam nga ko ci anamam xam nga ko ci palaasam xam nga ko ci jamonoom xam nga ko itam ci nattam ak nañ koy defee xam nga ko ci jafe-jafe bu amee xam nga ko ci jafe-jafe bu amul kon ban problème nga am kon foo nekk rek yaa ngi ànd ak sa diine mais boo xamul ci loolu yow doo mun a nekk wasat parce que laa tata kay yaf al la budda min takayuf parce que nekk wasat lu ne rek nga jox ko xam foog yooyu tam nag nga mun a nga mun a soppeeku waxuñ soppeekoo kàkkataar nag mais foog nga mun a soppeeku dangay tukki mun ngaa julli ñaari rakk mun ngaa boole ak julli xalaas loolu mooy xam-xam bi jeex na maa ngi julli tisbaar bu ma neexee ma yiixee takkusaan def ko bu ma neexee ma ma gaawee takkusaan boole koog tisbaar bu ma neexee ma yiixee tisbaar boole koog takkusaan xoolal ni nga jëriñoo ak ni nga noppaloo ñeenti rakka la woon ma def ko ñaari rakka hada mabniun alal ilmi hakada maa ngi tukki xamatuma fu ma ne xibla bi réer na nu may def te julli sart wérul julli laa budda min xibla nga ne kon naa bàyyi duma julli la fa aynama tuwallu fa samma wajhullah loolu xam-xam la adaala la amoo benn jafe-jafe amoo benn souci foo nekk rek yàlla boo fa jubloo rek xibla bi yàlla nangu na ko maanaam jubloowuñ foo nekk yàlla la bi maanaa eh, allahu fi kulli makaan la dañ koo jubloo ne boo réeroon xibla bi te dafa réer itam foo jàkkaarloo yàlla gis na la nangu na sa julli nga joge foofu wàcc ci jàkka ji jàkkaarloo di bañ a jàkkaarloo xibla ñu ne la déet xibla du foofu nga def fa aynamaatu wàllu fa sàmm wajhullah dinañ la ko nangul ah mais pourquoi ñu nangul la ko ci sahara ba nga réeree ah kon loolooy wasatiya nu suus yi dañ koy dégg bu ci ne teg ko fa nga xam ne foofu nga ko war a foofu nga ko war a teg kon loolu boo ko defee rek kon nag loolu mënoo ko def lu dul an takuna aliman la bud an takuna aliman wa sadiqan wa adilan lu ci ne ne nga dal di ko jox ak xam kon àq boobu bu ko xeeb kooku mooy kooku mooy alwasat noonu xeet boobu noonu lañu ñu ko ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallama joxe kon loolu mooy ensemble lu diine ji ñu ñëw nag ci ahlu sunnati wal jamaa kon wasatun fil wasat benn diggu doomu ci biir diggu doomu diggu doomu bii ñu waxoon mooy islam bi ci boppam amma ñun ñiy dund islaam bi nag foofu il faut diggu doomu am fa kon am na ay kuréel am na leneen am na leneen bi ñu yitteel mooy ahlu sunnati wal jamaa hum wasatun aydan boobu itam nag daa diggu doomu ci ni muy déggee diine ji ni muy jëflantee ak diine ji kon loolu itam dafa laaj beneen beneen wasat boo xam ne mu ngi ci biir ci biir diine ji kon moom ahlu sunnati wal jamaa wasatun bayna al firaqi daal la am na kuréel yu bari yoo xam ne ñu ngi fi ñu am seen dégginu boppam ci diine ji nga làkk aaya ñu làkk aaya nga indi hadis ñu indi hadis mais ndax bokk ngeen ni ngeen ko analyser ak ni ngeen ko déggee ak ni ngeen di jëflante ak moom da ngay gis ne wuute na kon wuute boobu yi la waxoon ca njëkk moo ca ay joué de mooy al ilmu wa sidqu wal amaana amaana boobu di maana adaala moom moo fay joué de xam dëggu jub boo seetee ñële da ngay gis ne am na lu ci lu ci sooxe kon loolu mooy ahlu sunnati wal jamaa kon mënuñu gëm ne nga nekk ci diine bi nga xam ne moom mooy wasat nga nekkaat ci ahlu sunnati wal jamaa nga xam ne ni ñuy déggee diine mu nekk dégginu wasat nga dund ci siniin takunu jaahilan waaw ah, anta anta ci ay at bi léegi yaa ngi réer yaa axi loolu loolu mënut sotti nag mënul ne kon am na côté boo xam ne ci nga jàppee sa bopp mais ne koo sax kon am na leneen loo loo jox privilège nga bàyyi beneen anam bi kon ahlu sunnati wal jamaa kon foofu itam wasat ci diggante kuréel yooyu mun nañu ci junju rek ay kuréel yoo xam ne ñoom ñoo ñoo gën a leer mooy alxawaarij almutazila alqadariya alchia almurjia xëy na léeg-léeg bu ñu tuddee tur yi noonu day doon jafe-jafe ndaxte ay tur lañu tur la yoo xam ne léeg-léeg li ñuy ëmb mooy lan day doon lu jafe alxawaarij ñooñu am na ay nusuus ak ay asaar yu ci ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ leen te ñëwaguñ mu ne bu ñu jàngee quran nga xeeb sa bopp bu ñu jaamoo yàlla nga xeeb sa bopp waaye nag dañuy génn ci diine ni fett di génnee ci xalaat yi kuréel boobu ndax amati na pour ñu joxoñ ko dina jafe waaye al afkaar mawjuda xelaat yi ñu ngi fi bokk na ci xelaat yi xeeb xam-xam boroom xam-xam yi jàpp ne xamuñu jàpp ne mënuñu jàpp ne ni ngeen gisee noonu dong lay am loolu boo ko seetee fii aw awsaati sabab kasir jiddan bari na lool ci sabab bi nga gis koo xam ne moom xamaa sa boppam rek lay demee xamul waaye masala bu gën a rëy rek mu song ko boroom xam-xam bu ca wax rek mu nërmal ko kooku afkaarul xawaarij dinañ ci dinañ ci gën a delluwaat mu'tazila mooy ñi nga xam ne yuqaddisuuna al aql xel rek nas bi bu ñëwee sax ñoom ñu ne bu dëppoowul xel bi kon nas bi lañu war a seet ñaata ci doomu aadama ñooy demee seen xel bu ñu waxoon fii benn masala rek kenn ki ne la sama xelaat te ferul ij kayfa yakunu indahu raay fii masalatin diini ñoo ci amee xelaat lii du mbir mu ñuy xelaat laa laa laa kii mbir la yoo xam ne an nusuus wala ahkaam kii ay atte la yoo xam ne dañ leen a tënk kon yow bokkoo noppil ñaata ci doomu adama ñoo dal di mel ci anam gu mel noonu alqadariya tudde nañ leen qadariya li nafyi al qadar ndogalu borom bi ñu ne déedéet du doomu adama def moo ko tey almurjia doomu aadama bi du dara lëpp lu fi am ci coobare yàlla la amee kon doomu adama bi loo ko wax tooñ ka problème ngi bëgg a ñëw ashia seen meloog bopp lañu ñu dal di yore ñii ñoo baax ñii ñoo bon te teguñ ko fenn lu dul seen bëgg-bëgg ndax bëgg-bëgg boobu sax dara nekkul ci ron pour mun a yàq kon kuréel yii lañu bokkal di dund diine ji kon ahlu sunnati wal jamaa def rek dafa war a leer seen doxalin seen programme ci xelaat yi nga xam ne ñoo ñu wër fokk ñu dellu si ñu ne xam-xam bi parce que lii ñu wax fi yëpp ay problème la mais yow xamoo te lii moo la wër yaa koy dund te xamoo mais yaa léeg-léeg doo dem rek fekk xelaatu jàmbur ngay demee jàpp ne diine la te du diine jàpp ne dëgg la te du dëgg jàpp ne yoon la te du yoon asakasir kon loolu il faut ñu dal di ci bàyyi xel kon ahlu sunnati wal wax nañu ne wasat lañ ci diggante bi diggante ëppal ak yi diggante saxal ak daq diggante bëgg ak bañ ndaxte laa ifraata wala tafrit loolu mooy wasal bul teengal bul ëppal waaye buy wàññi aussi kon loolu il faut nga xam ne lii mooy teengal lii mooy alxuluw fi diin mooy ëppal ni ko yahud yi defee ak ak nasaara dem nga ne du ma takk soxna wala dem ba nga ne lii xaraam na ci man ngir jaamu yàlla ñu ne loolu xudu bunt bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëj la waaye dem itam beneen doomu aadama bi kay moom du dara yàlla moom yërmandem bi bari na xalaas jaamu yàlla moom kooku amul solo xol bi rek am solo ñaata ci doomu aadama ñooy demee noonu ah non xol bi am solo ah jaamu yàlla nekk di julli di sëgg di siggi ah amul bi rek moo am ah, que noonu la d' xol bee am solo. ndaxte noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee hakada bëgg ak bañ ndax ndax yow dangay xol xool ku la neex rek nga bëgg ko ku la neexul nga bañ ko ni ko si ay di defee ndax da yaakaar ne mbir mi moom noonu lay dal di deme kon mbir mi du demee noonu kon foog nga dellu siwaat ñu xool wasat boobu nga xam ne ah ahlu sunnati wal am nañu ko ci anam yi yépp niñ ko joxoñooyen fële bu ñu ko dellu waatee ci lii nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala ñoom dañ ciy am affaire bu leer nañ laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir jeex na kon loolu faj nañ ci lu bari lool lu bari lool faj nañ ko ci dina gën a leeralaat jox borom bi subhanahu wa taala àqam jeex na te dinañ ko saxalal ay meloom kon loolu day dem ci lii nga xam ne mooy mooy wallu wàllu pas-pas te boo ko seetee am lu bari ci kuréel yi ñoom jaaruñu ci yoon wu mel noonu dañuy demee lii nga xam ne mooy mooy seen xelaat melo bu leen neex la ñuy jox borom bi subhanahu wa melo bu leen neex la ñuy dàqal borom bi subhanahu wa ñu dugg ci anam yoo xam ne du ñëw anam yoo xam ne loo jéem du ñëw buñ ci doon joxe misaal borom bi ne am naa loxo ñu ne borom bi amul loxo lu ci mel ni al mu'tazila amul loxo kon loxo borom bi mooy kàttanu borom bi wala loxo borom bi mooy joxe wala mooy nangam borom bi du noonu la ko waxee bu dee ahlu sunnati wal jamaa ne ñun d'accord nañu ne am na loxo nu mu mel xamuñu ñeneen ñi buggam ñëw naan nii la mel ak nii la def ak ñu indil seen bopp ay jafe-jafe ak seen ay problème kon kooku joxoñ rek la woon ñu xam wasatiyatu ahlu sunnati wal jamaa ne mabniya alal alal ilm dañ koo teg ci lii nga xam ne mooy xam-xam ak bunt bi nga xam ne mooy buntu bu am solo bu taxoon ñu tudd almurjia ak alqadariya ak alxawaarij mooy fi lqadaai walqadar loolu problème la alqadaau walqadar boo seetee borom bi lépp lu muy def da koy tënk borom bi programme mooy loo xam ne dañ koo tënk wuutal ko jamono ba muy am tënk bi qadar la bés ba muy am qada la kon tënk bi borom bi tënkoon na ne diw dina def nangam kon kooku tënk la bu borom bi tënkoon ci xam-xam ñu toog ba bés ba ca place ba diw bi def loolu ate boobu nag foofu nag la ahlu sunnati wal jamaa nekkee nekkee wasat boo seetee lii nga xam ne mooy qadariya te léeg-léeg muy yóbbaale alxawaarij ñoom dañuy jàpp xool ki jëf intaha moom moo ko jëf moo ko tey xalaas moom moo ko jëf moo ko tey kon fokk rek dañ ko war a mbugal ndaxte nas yi nekk ci suñu kanam ñaar lañu alwaad walwaid alwaadu mooy digle dige dige alwaid mooy ko dig ñi nga xam ne ñooy alqadariya ñoom dañuy jël alwaid ak ñoom xawaarij ak yeneen alwaid borom bi subhanahu wa taala fu mu wax rek loo xam ne lu dëgër la loo xam ne lu métti la ci wàllu jëf nit bu jëfee daan nangam yàlla mere na ko ku jëf lii day dal di dugg safara ku def nii ak nii mu nekk ay nusuus yoo xam ne nusuus yu leer lay doon ci borom bi subhanahu wa taala li mu wax loolu waa ji jëf na ko kon jeex na moo ko tey borom bi subhanahu wa taala nekkul yoonam nekkul ci jëfu jaam yi amu ci atte defu ci leneen jeex na ku jëf nangam waa ji jëf na kon fi ñeneen ñi ñëw ne la ah borom bi subhanahu wa boo demee ci alquran ñoom ñu jël nusuusul waat gafurur rahim borom bi aka bari yërmande tawaabur rahim aka koo xam ne day jéggale ñoom itam ñu dal di def loolu ñu nekkoon nit ki lu mu mun a jëf ci àdduna te jëf la jëfuk safaan laa yadurul iman fa huwa muminun billah moom gëm na yàlla yàlla ngëm la waxoon moom gëm na kon njaalo beeg sàcc beeg jëf yu bon yeeg kooku bu ko xool xoolal ñaata doomu aadama ñoo am xelaat yooyu xool bi rek xol bi imaan a ngi ci intaha ayna haza al iman alladi yaddaihi fi qalbihi iman boobu anam ahlu sunnati waljamaa nekk wasat ñëw saxal alqadaau walqadar ñëw dal di ko saxal nit ki lépp lu mu jëf am na ci responsabilité waaye mënul jëf nag lu génn coobare borom bi subhanahu wa taala coobare borom boobu subhanahu wa moom mooy coobareem moom borom bi subhanahu wa waaye jëf ji nit ki am na ci ak responsabilité loolu moo tax bu dee ku gëm yàlla ku jëf safaanoo lu yàlla digle mu xaraamal ko ahlu sunnati wal jamaa mu ne taxtal masiya mu ne kooku mu ngi ci coobare borom bi subhanahu wa taala bu ko soobee mu jéggal ko bu ko soobee mu buggal ko bu dee ñeneen yi gannaaw jëf na du bon waajibun ala allah an yuazibahu subhanallah man yujibu ala allah shay kan mooy waral yàlla dara kon kooku fokk rek dañ koy war a dañ koy war a mbugal ñeneen yi dal di nooyal ba ñu far bàyyi li nga xam ne mooy jaamu yàlla kon ahlu sunnati wal jamaa ñëw nekk wasat ci idéologie yooyu nga xam ne yu ñu war a bàyyi xel la te ñu koy waxtaanee di ko wax nga gëm ne lépp loo def dafa neex yàlla moo tax nga def ko mais yàlla léeg-léeg mu seetaan la ci lu ko neexul nga def ko yow parce que mabniyun ala sharia njaaloo dafa xaram d'accord mais yow yàlla bu sàkkuloon góor sàkk jigéen da nga mais bi bi hikmati yi sàkk na góor sàkk jigéen daganal sëy xaraamal njaalo ne la mu ngi noonu kon jaaral ci yoon bi yoon wu jub bi nga xam ne daa tegu ci xam-xam bu leer mu ne waaw mu ne jaar ci jigéen baa ngi nii sàkk naa ko yow góor nga bëgg nga ko demal ñaan ko ñu may ne ko ñu xam ne sa soxna la nga bànneexu ci moom xalas loolu leer la mais yow nga gis lu bañ koo ñaan dem njaalo ji kon borom bi subhanahu wa taala bi mashiatihi nga jaalo moom yëg na ko xam na ne danga nga mais côté boobu jaalo bi nga jaalo taxul mu nekk lu dagan dina la ko atte parce que tegoon na la jox na la xel wax na la boo bëggee fii ngay jaar dal di ko jël nga dal di ko am yow nga ne yàlla man jaaruma foofu defuma ko nga dem jaalo ba pare na nga ne yàlla bu la mbugalee dina fekk tooñ na la wala def na nangam nangam parce que moo ko soob mbax yàlla moo la deful ku gëm yàlla yàlla moo la def koo xam ne nangam ak nangam kon ñàkk yar ba yahud yi amoon ca borom bi subhanahu wa ak yàq ko xeeb ko yow dugg nga ci loolu ndaxte borom bi subhanahu wa taala il faut nga d'accord loolu borom bi li muy jëf kenn du ko wax ne lu tax la borom bi looloo ko soob noonu la ko joxee ci wàllu charia la ko tëral mais bu ko ci wàllu xadaawul kaw nii doo ko man borom bi bu ko neexoon boo buggee njaalo mu téye say cër ndax dina njaalo du njaalo mais borom bi dina la may waxt may la temps jox la ko bëgg baaxee la nga am place bu ngeen mun a wéet mu may la kattan ba nga mun a sëy daal di jóge foofu dem sa yoon mu sàng la sutura teg ci kookoy borom subhanahu wa taala mu sàng la sutura ci boo ko jégguloo mu jéggal la kon ah, dégg nañu aaya bi xafuru rahim kon dalay jéggal parce que dalaa yërëm xam na ne yow ku ñàkk solo nga mu jéggal la mais njéggal boobu nag moom mais mu ko def ci coobare mais bu ko neexee nga jéggalu ko mu ne waa bañ yonent bi sallallahu alayhi ba mu jullee ci rasul munafiqin jéggaluwu ko borom bi subhanahu wa taala waxu ne que maa bañ boo jéggaloon juróom-ñaar fukki yoon it maa bañ ko kooku coobareem la moo ko moom parce que ay mbiram la moo ko moom tawxiid mu dugal ko ci sa xol kooku min fadlihi subhanahu wa taala kooku benn mbaax boo xam ne mu la koy baaxee bu neexee mu jox la ko bu ko neexee mu bañ la koy jox moo ko moom bu ko neexee mu teg la ci yoonu njub bu ko neexee mu seetaan la moom moo ko moom kenn du ko forcer si anam yooyu kon ahlu sunnati wal jamaa ñoom loolu la ñuy nangu du ñu forcer yàlla du ñu foqar ñi ci borom bi subhanahu wa dañuy jàpp ne lii moo ko moom de koy jox ku ko soob kon yàlla bëgg naa ko jox ma ko kon yoon wu gis nga yoon wu leer laay doon mais du ñu dugg ci ay philosophie di wax ci yeneen wax yoo xam ni day doon yu jafe kon ñu ne ñii nga xam ne ñooy ya ñoom yi nga xam ne toujours rek dañuy dëgër ci isbaat lii nga xam ne mooy isbaatul qadar xata salabul abda fiilahu wa ixtiyaarahu wa yajaluunahu mujbaran lu am rek yàlla mu ne man la d'accord moom la ñu ne kon nit ki robot la amul responsabilité ci ay jëfam robot la amul ci responsabilité lu mu jëf rek moom la parce que yàlla mu ne li ma wax rek loolu mooy doon mooy doon kon problème commencé na di ñëw te yàlla mu ne sàkk naa doomu adama bi jox naa ko xel jox naa ko responsabilité jox naa ko jox naa ko waaye loolu yépp nag mu ngi tegu ci sama xam-xam man borom bi subhanahu wa taala ak sama nammel loolu la wa ma tashaa'uuna illa an yasha allah kon asbata lil abdi mashia ba'da mashiatillah saxalal na nit ki yow am nga coobare am nga bëgg-bëgg borom bi boyal na la mais loolu wonewul ne da ngaa am na ku la topp di la yi ki la sàkk di la contrôler mais bàyyi na la nga dem nga tànnal sa bopp mais wanewul ne da ngaa ñàkka ñàkkaa autonomie boobu nga yore kooku mooy tax moom mu nekk borom bi liberté bi mu la jox nekkul day firi ne da ngay def lu la neex dégg-dégg boobu nag bu sew la moom mooy dégg-dégg ahlu sunnati wal jamaa ba seen jaamu yàlla day nekk jaamu yàlla bu leer bu jub lépp lu ñu topp rek dëppoo naag xel ahlu sunnati wal jamaa lu ñu wax rek boo ko seetee ci ni mu kiyee xel bu ñu nee xel nag mooy ban mooy xel bu sell bi jaar ci yow mais waxuñ ne xel bi yàqu ba xamatul mbir mi naka lay demee xamatul nattuwaay yi lan la xel bi dem jaamu ji xërëm xel bi dem yàq borom bi subhanahu wa taala xel bi dem xeeb yonent yi loolu loolu du xel lan la daa am ci leneen lu mu topp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawidaani aw yunassiraani aw yumajjisaani kama tuntiju lbahimatu bahimatan jamaa kon fitra boobu mooy xel bi may wax borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral mu ne ku rek ànd loolu ba muy judd waaye ba mu juddoo nag laay soppiloo la mooy milieu ba muy judd diggante yaayam ak baayam la ñu woon mu gis ne ñoom xelaatug yahud mu génn nekkug yahud ñu gis ne xelaatug nasraan mu génn nekkug nasraan ñu gis ne xelaatug majuus ñu génn nekk ak majuus bu ñu ko doon xaj ci mu gën a jege dañuy wax ne kenn du judduwaale tariqa dañ koy judduwaale la bu nit ki bu juddoo day juddu alal fitra mais gannaaw ba muy màgg nag ki baayam di géñee ki baayam di barkeeloo photo bi baayam di teg yan sa ala zalik bu jógee màgg ci loolu loolu mu màgg nag ñu ne loolu mooy fitraam déedéet loolu du fitra juddoo woon nag fitra bi dañ koo soppi loolu nag dafa bari ci anam yi islam bi ci boppam lu ci ëpp loolu la nit ki day judd ci société bi rek hmm. daal di màgg nag ànd ak société bi bu jógee nag mu ne moom jullit la moom boroom xam-xam la ndaxte gis na ne mbir yi nii laay demee déedéet ñëwagoo jaaragoo ci wasatiya bi parce que gisagoo ko jàngagoo ko xamagoo ko da nga gis nit ñi di jëf rek nga jëf li nit ñi di def lan la ndax mu'tazili la ndax yi la ndax shii la ndax mu'tazili la ndax lan la ndax ndax ndax ndax njaxas yu bari yooyu ngay gis nit ki dajale ko nag taxaw mu ne lii mooy diine fekk hasara hasara sa bu fekkee nag wasatiya bi nga bëgg danga koy dal di segg nag xam diine ji ngay dund lu mu laaj xam ahlu sunnati wal jamaa nu ñu déggee nusuus yi nga xam ne ñu ngi ci suñu kanam ñu war koo ñu war koo jëfandikoo moo tax ahlu sunnati wal jamaa dañuy nekk ci wasat bi ndaxte ñoom tegtal yi rek la ñu topp borom bi subhanahu wa melalal na boppam mu ne ñu mooy gaafiri zanbi wa qaabili tawb شديد الإيقاف ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير borom bi leeral na fii de lu leer naññ xëj na bañ a seetlu bañ a dégg xaafiri mooy kuy jéggal ay bàkkaar qaabili taw mooy kuy nangu tuub almurji a jël noonu xalaas loo def rek ñu ne amul solo borom bi subhanahu wa taala xaafiri zanb qaabili taw jeex na borom bi loo def mu jéggal la ko boo tuubee mu baal la kon amul solo jëfal rek ngay daal di dem subhanallah lu tax nga dagg aaya bi ñeneen itam ñëw jël beneen satru boobu fàtte xaafiri zanbi wa qaabili taw ah ñu ne saahibul kabira muxalladun fi naar ku njaalo moom safara rek te dootoo fa génn abadan xalaas ah, yaa axi du loolu bul fàttee xaafiri zan day jéggal bàkkaar ci ku tuub ku ko soob ñii nga xam ne ñooy aljabriya wala ñii nga xam ne ñooy alqadariya ñoom itam ñu dal di saxal beneen wàll bi shadidil iqaab si taw borom bi mbugalam defa tar borom bi borom kattan la kon boo njaaloo mu mbugal la boo sàccee mu mbugal la ahlu sunnati wal jamaa dal di ñëw yàlla day jéggale yàlla day mbugal naka la kon nag kii mu ngi nii njaalo kii mu ngi nii njaalo kii nga xam ne murji yi lan la mooy ah njaalo day moom du dara te léeg-léeg nga dégg ko fii ñu koy wax ñaari der yuy laalante lu ci yoonu borom waaye c'est ça ah njaalo kon du dara kon kooku jàpp na xaafirisal jeex na kon lu la neex defalati nga dem ci sadidil iqaab njaaloo na ñu ne waaw mu ne mu xalladun fi naar kooku dootul génn safara xalaas borom bi xaraamal na njaalo moom njaaloo na safara intaha ahlu sunnati wal ñu ne ko waaw kii moom lan la mu ah kii de moom muminun bi imaanihi waaye nag faasiqun bi fiilihi maa hukmuhu taxta almasira mu jullit la ñu ne waaw mu ne jullit la jeex na ah, moom mu jullit gis nañ ko muy tudd yàlla di julli di dem di ñëw mu ne waaw mu ne waaye lii mu def moom jullit bu génn topp la ndaxte def na lu ñu tere kon jullit bu génn topp la bu déggul ndigalu borom bi subhanahu wa taala mais lay sa kaafiran ñu ne ko atteem ëllëg nag yawmal qiyaama ah mu ne loolu nag yàllaa ko jagoo kooku taxtal masiya isa shaa gafara la wa isa shaa azaba kooku mooy wasat woon na la ne jullit la waaye du jullit bu baax waaye bul ne yéeféer la bul ne day dugg safara parce que xamoo waaye bul ne deful dara parce que yàllaa ko njaalaloo yàllaa def nangam loolu du dara yàlla da koy jéggal société bi yàqu bul wax loolu neel jullit la waaye jullit bu dëng la xalaas jullit bu dëng la moo tax sariya teg ci moom sanction bu fekkee atte yi daje nañu kon loolu mooy wasatiya bi nga xam ne nit ki da ko war a dégg ci lii nga xam ne mooy ahlu sunnati wal boo rombee foofu nga gis itam ahlu sunnati wal jamaa wasat lañu fi xubbi saxaaba ridwanullahi alayhim saxaabatul kiram ahlu sunnati wal wasat lañu ci waxuñu la ne asahaabi maasum déedéet mais duñ la wax ne sahaabi mujrim déedéet ñoom dañ ne kulluhum bi wasfillahi tabaraka wa taala lahu ñoom ñépp ñu maandu lañu ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo ñu ko wax waaye waxuñu la ne duñu juum ah kay dañuy juum waaye borom bi ne gërëm naa leen radiyallahu anhu wa radu wa radu wa min almuminina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi ah sahaaba yii wallahi jàmbaar lañu li ñu waxoon yàlla def nañu am nañu ci des am na ñoo xam ne demaguñu kon ñun lan mooy suñu pas-pas ci ñoom mooy bi borom bi subhanahu wa taala wax ñu baax lañu ñu ñaan yàlla bu mu def lenn ci ñun luy tax ñu bañ leen luy tax ñu xeeb leen ñuy tax ñu sikk leen walladina jaau min baadihim yaquluuna rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina gillan lilladina amanu hakada kon lii moo nekk suñu digganteeg sahaaba yi mais demal ci chi ay ñu tànn ci lim bu tuuti ñu ne ñii rek ñoo baax ñeneen ñi ñu bon lañu ñeneen ñi ñu yées lañu ñii njaalo nañu ñii nëbb nañu ñii jalgati nañu ñii ñii ñii ñii ah, wasat ah ñooñu ñu jàpp ne ñoom ñooy ñu baax ñu ne ñoom awliya ya'lamuna al-ghayb bal ñenn ci ñoom ñu ne ilaa ñu ñu fekki ay yahud wala ñu fekk yeneen mbir yi kon anam bu mel noonu nit ki da ciy war a da ciy war a bàyyi xel te ñu gis ne suñu jamono léegi ni nga xam ne xelaat yooyu tasaaroo na yow ki nga xam ne nag yaa nekk ahlu sunnati wal jamaa ngel dangaa war a xam nag dangaa war a xam dangaa war a xam nusuus yi dangaa war a xam àqu saxaaba yi dangaa war a xam seeni tolluwaay dangaa war a xam seeni taxawaay dangaa war a xam njukkal bi nga xam ne war nga leen koo delloo mais boo nee ñoom ñu bon lañu saay-saay lañu kon ndax sa quran bi wér na ndax na bi nga xam ne riwaaya na ko mu ñëw ndax wér na kon gaaya foofu lañu ñu a yegg parce que bu la gëmloo ne baaxul kon liñ la indil baaxul liñ la indil dëgguwul liñ la indil maanuwul waaye yow nag loolu yëpp sa yoon nekk nga gàddu sa làmmeñ nga ne ah c'est possible ah war na mun a nekk ah, ali nga xam ne mooy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga gaa yi li ñu wax dëgg la ah, ahlul bayti nangam ak nangam <laughs> mbir mi du noonu kun wasatam quran bi ñëwul ne la ali rek a baax quran bi tudd na ñeneen ñu dul ali ah quran bi li muy yaatu yëpp kenn rek la ñu tudd ci turam mooy zayd zayd ndax bokk na sax ci al ashara mubasaruna bil janna la kon laa shakk am na ñu ko gën foofu ndax yàlla tudd na leen léeg-léeg ci isaara wala ci ay anam walla ci wala wala wala wala ñooñu ñu dal di kii keneen ñëw ne la ñoom baaxuñu Abubakar baaxul Umar baaxul Ousmane baaxul Ali yàlla la subhanallah mais eh, da xoolaat yow ki nga xam ne yaa ngi dund ci wasat nga xam ne saxaaba yi ay nit lañu dañuy xam dañuy juum dañuy farlu yàlla ne na jéggal na leen yàlla ne la gërëm na leen yàlla ne na sant na leen lu tee ci ngërmandeeg yàlla ak njéggalug yàlla nga doyloo ko yow waaye keneen ñëw la dañoo ñooñu baaxul nga déglu ko jeng nga. keneen ñëw na la ñenn ci ñoom xam nañu xaybu ay yàlla la jéng nga kon nekkal wasat wasat boobu nag ci xam-xam dong nga ko mun a amee kon loolu il faut rek ñu dal di ci bàyyi xel kon yooyu ñuy wax yépp da gis ne tey jamono jamono indi na ko te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci anam yu bari lool xilaafa bi nga xam ne ci lañuy jaar di wax anam yu dul jeex mais masala la boo xam ne saxaaba yi réglé woon nañu ko amul beneen problème saxaaba yi rek réglé nañu ko amul beneen problème saxaaba lañu yonent bi sallallahu alayhi wa pouvoir bi mu amoon ñoom àgguñu fa àq bi ñu amoon ñoom àgguñu fa yonent bi bu doon wax moom la ñuy déglu moom la ñuy dem yonent bi nekkatu fi kon ñi fi des mooy nu ñuy organiser ñu baax ñooñu ñu bàyyi leen fi ñoom ñëpp am ñu ñu doyloo doyloo Abu Bakar gannaawam Umar gannaawam Usmaan gannaawam Ali ñu bëgg a wax nag saxaaba yooyu dañu juum dañuy tooñ Abu Bakar génn na topp parce que nangu naa jiite Ali ah situation bi du loolu de kon il faut nga xam situation fu mu ne te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bul fexe mu ba saaga benn saxaabi laata subbu asaab bu leen saaga kon aaya bi leeral nañ lan moo war a dox suñu diggante keneen ñëw moom indil la yeneen. fii amril xilaafa nga xam ne fit na fu mu am rek looloo ko indi xoolal tey ci jamono fu yàqu deret di tuuru alal dal di yàqu sécurité joge fa lan moo ko indi maa war a jiite maa war a jiite kon masala boobu du masala caaxaan de ñu gis ay sabab yuy wur di wax ay caaxaan naan ay bay a mbir moomu nañ ko bàyyi mu tëdd nañu dem ci wasatiya bi nga xam ne moom lañu ñu salafu saalix jàngal njiit bu yeggee ci place ba yore mbir yi walaw xataan walahu taa wal wala fii ma lam yamur bil masiya donte defa juum donte dafa rey nit ñi ba nekk amir noot nit ñi ahlu sunnati wal jamaa ñu ne déggal leen ko topp leen ko sàng leen ko sutura ñaanal leen ko jàppale leen ko feeg diglewul lu yàlla tere feeg diglewul lu yàlla tere kon masail yooyu masail la yoo xam ne ahlu sunnati wal jamaa réglé woon na ko waratu doon am benn problème waratu doon am yenn yoo xam ne yoo yooyu dem fu mu mun a nekk même ci solo hatta fi solo naam sallu xalfa kulla barrin wa fajir tonte ci julli jullil gannaaw ku baax ak ku baaxeewul loolu imam bi kaza imam bi kaza te mooy imam manoo koo foon li manoo leneen looy def bu kàbbaree xanaa du faatiha lay jàng xanaa du saar la ciy teg allahu akbar salaamaaleykum wa rahmatullah loolu war na indi problème warul indi problème yaa axi jullil gannaawam bul sos leneen bul xas bul indi problème bul indi dara jullil gannaawam xam nga man nga lewetal di jàngale di wone nekk ku yaru ñu wóolu la ëllëg ñu ne la salli binnas ay nal muskila benn problème du waaye boo génnee nga ne damay indi nusuus yi ya ummukum aqra'ukum li kitaabillah d'accord kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy wax mais yow ni ko déggee hal yastaqirul umur ki leen di jiite mooy kileen leen dàq Qur'an d'accord mooy mooy keroog ba ngeen di fal imam yenn keroog bi ngeen di fal imam woor ngeen ba sonn ah, amu leen kenn ku mun alquran lu dul saar yu gàtt yi ngeen dal di ko fal mu nekk imam ñu toog fii ngeen jiite tuuti benn kàng fóore dëkk si ci koñ bi nga ne da ngay nga ne imam boobu wàccal waa ji yee loolu hmm, hmm. de du loolu de kàng fóore boobu na wone boppam ci lewetam ci maandoom ci tënku gannaaw imaam ci mun a waxtaan ak imaam ci man koo laayee biir ba imaam dal di yëg ne kii moo ma raw moo ma man moo a gën a yeeyoo mu koy jiital bu ñu dajee ne ko salli bi nas ñu commencé di julli di julli ba mu yàgg mu ne leen ah man day léegi xam ngeen ne vraiment dama bëggoon rek xam ngeen waa ji daal ñu jël ko wala moom mu bañ a wax loolu ñu dem léeg-léeg amaan na moom mu toxu ñu ne ko ah yaa fi nekk di wala moom mu dee ñu ne ko yaa fi nekk di wala moom mu feebar ñu ne ko yaa fi nekk mais boo nekkee di xas nit ñi di saaga nit di xalam di def neneen ndax da nga fa yegg si loolu du wasatiyatu ahlu sunnati wal jamaa de kon suus yi fokk ñu dégg ko déggin bi nga xam ne mooy déggin bu leer waaye déggin bu tegu ci xam-xam waaye mooy déggin bu dëggu waaye mooy ñu teg ko ci maandu loolu buñ ko defee rek dinañ yëg anam boobu kon xam nañu ne guddal nañu ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu baaxee ak njub am na yu bari yoo xam ne xëj na bàyyi nañu ko waaye xëj na taxawaay beeg am ak xam-xam bi moo toll lu mel noonu kon buntu laaye biir la woon buntu jàppante la woon buntu seet ni mbir mi di yéwénee loolu la woon lépp lu ci jub ñoo xam ne ci borom bi subhanahu wa waaye lépp lu ci dëng itam ñoo xamoon ne ku bëggoon def lu baax rek boo dal di rëcc le ci xam-xamam bu gàtt mu ngi jéggulu wa ma la alallahi bi aziz assalaamu salaam wa rahmatullah jazakumullahu xayran wa jaala hadihi kalimat bi mizan sanatikum wa xafadakumullahu raakum eh, kon mbokk yi ñu dëggaloo waxtaan bi am solo bi eh, temps bi nag dañoo ñett léegi dañ leen di maye ak alam yéen lu mat eh, dix minutes maximum li am ngir laaj ko ko ngeen laaj ko ko waaye